mbokki jullit yi mbokki taalibe yi niñ koy defee at mu jot ngir ànd ak yéen ci màggaluk sarsaara diirub ayubés ca réewum gànnaar ci jéego yu am solo ya fa sëriñ tubaa cheikh ahmadou bamba xaadim rasul defoon te ñu koy fàttaliku ak màggal at mu jot loolu tax na nag lu ëpp fukki site internet ak juróom fasantikoo fas yéene ànd ak yéen lépp lu fay xew-xew ñu daal di leen ko jox liggéey bu am solo bi nag ngir yaatal ko dañ cee daal di lëkkaloog yenn ci télévision yi ak rajo yi ba ci réseaux sociaux yi atum ren ji nag ñu jàpp ko le 29 mai 2023 di ci ànd nag ak suñuy sponsor di jaajëfal mboolem ñi nga xam ne nii jàpp nañ ci yaatal liggéey bi ngir tàbbal seen loxo ci liggéeyal Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul rawatina nag ONG Ahlu kafe ci njiitu soxna maam Issa Mbacke képp koo xam na ni nag bëgg nga cee tàbbi wala nga bëgg cee jàpp moo xam nga yor sa société wala entreprise wala lu mën a doon bëgg a yaatal sa liggéey sa service wala sa produit ànd ko ak site internet yi ngir yaatal liggéeyub Serigne bi fii ci gànnaar mën ngaa daal di woote ci numéro yi 77 635 13 63 wala 77 548 25 17 Sarsara 2023 ñu ànd ko ak comité d'organisation bi ak mboolem kuréel yi cay yëngu danan ko yaatal ba àdduna bépp daal di ci jotee ci fàttali Sarsara nekk bërëb bu am wàccuwaay ci taarixu Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul